ko defee rek kon am na koo xam ni nit ñi duñ ko gaaw a xam mukk ndax de façon bi mu leen réeree dafa ëpp keroog Ibrahim Mbay rekk mu ngoy nettali ni ci sëriñ kan bu alaaji Ousmane kan la ko diggee ne sëriñ kan ni ko gis nga sëriñ Cheikh ak sëriñ Moustapha nit ñi duñu gaaw a xam seen seen cër ndax seen civilisé gu ëpp waaw mu ndax boo civilisé ba mu ëpp rek nit ñi dañuy am yu ñuy jaawale waaw ah, ku nekk fa mu toll ak na mu mën a déggee waaw ki dul gis lu dul li ci kanam li ci kanam rekk lay gis mais yàlla dimbale mu mën gis la ca gannaaw fa kachafna anka xitaaka fa basaruka al yawma ñooñu it ak seen cër ko defee kon nag eh tisbar ji dugg na waxtaan yi du jeex waaye occasion yi du jeex ma ngi am benn mbokk keroog mi naan ma géej nga def gàmmu ca yeen mu ni méta bu ñu sañoon nag wax dëgg yàlla nga saraxat yi pour may ñu benn guddi ca yeen ma ni ko incha allah bu ko yàlla dogalee mu war nekk danañ ko def incha allah ñiy ñaan yu mel noonu kenn xamul nu mu toll waaye fekk jamono xat ak it interprétation yi dafa bare te dafa am ay mouvement yu fi nekk yu nga xam ni dara du seen métier lu dul lu nit wax ñu déformer ko te dafa am nit ñu leen di gêner waaw ñu ngi koy waxtaanee ci oto bi léegi ak Aziz waaw suñu Cheikh nee na dama def benn waxtaan nee na woo benn journaliste ba mu ñëw mu yëkkati xaalis jox ko ni ko demal bind benn article wax ni Cheikh Tidiane daf doon saaga sunu maam aadam xoolal loolu nee na journaliste xam nga ñu mel noonu nag ñoo barewul ñu ngi ko waxtaane léegi ci bu jëkkoon honneur médiatique moo amoon mais léegi honneur médiatique amatul horreur médiatique moo am moom mu ni ma faf catastrophe médiatique sax moo am waaw ma defe ni kon nag la bu yeggee foofu nag dafay laaj ñu seetaat sunu bopp ndax wax dafa garaaw defar na waaye yàq na waaw bu ko defee ñu gërëm ñépp képp ku ci sonn rekk ñi ko moomal seen bopp ci niveau daayira bi moo xam ñi nekk ci biir réew mi walla ñi nekk ci bitim réew ku ne ak façon ba mu participer ñi nga xam ni suñuy wëllëre lañu ñoom itam ku ci nekk ak façon ba mu defe ñu yore ay mouvement ñu bokk ci ay famille yu religieuse ñoo bokk ci ay parti politique ñoom ñëpp ku nekk wane nga sa xérte ci yëf yi fa tabaarakallaahu ah mu mel ni nag pur judd na ba tollu fi mu toll ku ko bëgg yaa xam waaye ku ko bañit yaa xam jamono ngi ñëw soreetul lenge yépp ci sunu loxo la jëm kon nag lu ñu waay di def rekk ba yeboo mu xam ko ndax ku dul fen a ko wax muy Seyid Cheikh Ahmed Tijani moo wax ni yëf yi ci seen loxo lay mucc waaw l'essentiel mooy ñu bañ ko yàkkamti te fexe ba li dal ñeneen bañ ñu dal te mooy yëf yi bett li xew yépp mooy dañu jël yëf yi te mu betti leen te ñi fi jóge liñ fi bàyyi waxuñu ko waaw moo tax coono bi bare ñun xam nañ ca lu bare waaye comme kenn boolewuñu ñu nit ñu nekk magum lëndëm rekk waaw ku ñu dajul ñu daj suñu bopp waaw waaw bu ko defee comme ni ko Oustaz waxe sant ministre de l'intérieur ndax ni mu defe ren ci gàmmu gi la tax ñu sant ko mooy ko fi nekkoon daaw